Abdou Ndiaye Kaffrine 90 kilos. si Sémbe. Dakar disciple na combat ba Seydina Diop Saint-Louis. Thiaka ngi jat ba léegi. première demi-finale. 86 kilos waaw jat ba ndeysaan sëgg nañ. Seydina Diop moo des. Seydina Diop Saint-Louis. Dakar, c'est une blague. Se prépare. Saliou Faye. Ouyaye. Hey, Thiaga Faye.